ngi ci biir kër yi kon dafa doy bu ñu amatu mënatuñoo génn soo génnee yaa ngi xaar ku la agressé boo tëddee sa kër yaa ngi xaar ku la fa fekk dara leeratul te nag il faut ñu jaay suñu doole ndax ñun liggéey rek la xam ni Macky Sall li lay wax man damay wax ni Macky Sall dëkk bi lëndam na sàcc yi bari na yi bari na xale yu ndaw yi nga xamante ni dafa war a lii xam nga du agresseur donc kon boo yar sa doom na ko yar ci daylu fii waroon na fees ak ay autorité parce que xool dañoo xoolu Pikine la ñu dem xale bu jigéen buy liggéey utaloo ko liggéey moom moo xalaat lu muy liggéey mu ñëw ñu fekk ko fa rey ko kon xoolu Pikine la ñu dem te bu fekkoonte ni leneen la ñuy ñi ngi dama seen ay kàkkaar fële di fa dugg kon nañu bàyyi nit ñi xel xam ne nit ñi duñu ay weñ nañ ñu bàyyi xel xam ne nit ñi duñu ay weñ amuñu doole doole jigéen ndox dama ni am na jom ba mi ngi liggéey liggéeyam keneen am na jom ba mi ngi liggéey liggéeyam nañ ñu dimbali leeral ko rey ba heure bi ñu ko gis bu fi sécurité amoon loolu du demee noonu ñuy jëm jaajëfal waa picc waa police Pikine bu baax a baax man mii rek bari na bokk li ma leen jiwoo ci ay situation mais foo leen mën sa woo nag wax dëgg taxul ñu liggéey ko mais li li waa ji wax rek ñun di waa Pikine dañoo sonn armée li fees na ñuy yuuxu fuñ ko fuñ ko def ñuy xaar agresseurs yi bari na lamp yi bu ñu mekku nee ay teg ay lamp du tàkk du tàkk lamp yi tàkkul Roqeela ji yemul ci la ñu wax ñu bi laay woo may lii dafa doy ku gis sa koñ loo xam ne waroo ko faa gis fajal ko sa bopp ku ko gis a gis rek fajal ko sa bu nekk lii amoon na fi am na ay temps ñu def kuréel mu def lii mais fan la mujj am na ñoo xamante ne ba tey ñu ngi ci ko soy parce que dañoo fayoon ñu kenn fayal sa bopp mais nag fan la fan la bët di wàcc fan la wàcc ne ba jëkk bëtam man lii victime laa ci man agressé nañ ma sama rakk fekk nañ ko ci biir këram di di ko agressé ci jabaram rey moom bëgg ko rey mu rey di leen ma saw bu baax. rahmatullah waa Pikine asalaamaaleykum waa Pikine wala ma teel a ngeen jëf waa Pikine xale mag ndaw imaam yi jigéen ñi góor ñi waa Pikine jërë ngeen jëf yàlla na suñu borom bi fay leen yiw donc dafa am euh, ay développement yoo xam ne ni dama ko bëggoon def rapidement daf ci am yoo xam ne xam naa du ci jaaraat parce que daaw dëgg yi wax na ko moom mooy wàllu arène nationale li heure bi jot moom moo tax nag maa ngi ciy jégalu bu baax moom mooy accompagnement yi nga xam ne yii bi ñu ko diggee waroon na fi am gis ngeen document bi kii mooy projet initial biñ ñu joxoon ne dañ doon defal arène nationale li ñu waxoon yëpp ne moom mooy accompagner arène nationale bi mu nekk ci biir document bi amul tey jii ci arène nationale leen paree bu leen neexee mën naa leen ko wan kii mooy document initial bi donc Daouda wax na Mame wax na par rapport ak commissariat mais dafa am lu xew bu combat amee ba pare loolu ñuy wax simol loolu wax dëgg yàlla simol loolu sonal nañu trop donc ñoo ngi ñaan service de sécurité yi li ñuy wax simol ñu taxaw ci ban ko arrêté beneen bi moom mooy lii ñu jàkkaar lool suñu place publique bi le maire de la commune Amadou Diarra dafa ñëwoon defar fi place publique bi mu doon idée bu génial bu extraordinaire population yëpp bëgg ko ñëpp ñu ñeeñu dañ ñoo ñeewoon ci ku romb nañu seen maire bi il a très bien fait fii mu def fi fii mu def fi ay lumières yu doy mais wifi bi dem na lumières yi dem na léegi place publique bi dortoir lañ ko def tey ci suba tey ci suba bi ma jullee ba pare ne laa tàmbali ma ne naa vérifié waat parce que dama daan compter dix à quinze tey malheureusement huit laa fi fekk yoo xam ne dañu tëdd banque fii fële laa commencé ba fii huit personnes ñoo fi fanaan peut-être que heure bi ma doon jóg sax am na ñoo xam ne dem nañu donc c'est un appel monsieur le maire fii dañ ko war a assainir parce que pour ñun la te ñun ñemeetuñ fi dañ ko seexlu léegi s'il vous plaît monsieur le maire ñëwal nga jàppale ñu sa idée bu génial boobu dañu bëggoon nga pérenniser ko nga jàppale population bi pour loolu mu mën a régler liñ ci bëgg moom mooy garab yi dafa xumb ba nga xam ne day nëbb mhm. donc ñu mën ko élaguer mhm. parce que dañu gis ne amul bëriwul njariñ trop mais ñu koy élaguer di ko defar ba mu jekk beneen bi moom mooy ñu def ci lumière bu doy parce que leeraay li daaw dëggee doon wax bu leeraay amee rek ragal ragal mën na am mhm. beneen bi moom mooy ñu assainir espace yi wax naa ko moom mooy ñi fi fanaan ñu lijjanti leen pour ñu jóge fii parce que daaw ñu fi fanaan pour ñun ñu mën a occuper su tàngaay baa ngi ñëw ñu mën a occuper place bi librement donc loolu demande la bu yoo xam ne bi ñu koy wax à monsieur beneen bi moom mooy lan mooy suñu responsabilité ci ci li xew il faut ñuy jël suñu responsabilité les délégués de quartier les présidents des lan mooy seen rôle est-ce que ñoom dañu war a délégué de bi rek bind naa këyit soxla naa këyit rek nga defar ko non non non de la di il faut ñu am la culture de la dénonciation culture de la dénonciation bandi yi salte yi ci suñu kër yi la ñu dëkk ci suñu koñ yi la ñu dëkk délégués garde quartier yi xam nañ leen si vous avez peur de les dénoncer mais summi leen seen mbubb ngeen jox ko ñeneen s'il vous plaît les présidents des ASC ASC waruñu taxaw rek pour football football bi day créer insécurité aussi et pourtant association sportive et culturelle la tudd mais développer la culture tout à l'heure wala démb maa ngi dégg sama euh, le maire Sougou muy wax loolu c'est la culture qui peut faire développer les choses ah Sougou ñoo ngi la dénk loolu cette culture là mairie bi dénk na la ko wax dëgg yàlla te wóolu nañ la ci bëgg nañ nga développer ko au nom de ces associations là les maires Euh, euh, subvention yi nga xam ne ñoo ngi koy def ay les ASC mais les présidents d' ASC créer les ces de vigilance chaque ASC am comité de vigilance am bu boobaa problème bi.